ñoom ñoom ba feeñ na sujjoot jóg tis li sant borom xaras xaras way ko moog mbooloo mayalaw mboole malaaka ya naa yarhamukallaahu yaa xayral anaami wa muxtaaru yalaw malaaka yaa ko ne meŋ ne mes war suusi war a samaaw ngir na yalaw ñu del si dellu ne mes fa dooti weesu ndem ndem tàbbi aljana wër ngeen ndem yeyalaw kem tarfatal hayni wër nañ fépp fépp fu ne malaani aljana lañ delloo si yalaw makoolu haynin nasiifan tayiban atiram maxtoo surratiin maxtoo na yalaw bur yàlla tusngal ko doglu tamba ko mu wér lakkal ko waajal ko fiil janaati yalaw واعتر النظر المصطفى كرما دارا بعرف سسين منك يا الله وسلمنا بتسليم علي به وروير بريحان يا الله دور المغلى في خرباخ ليلا عزارت قدي جدو مصطفى نول مكة يا الله دور المغلى في خرباخ ليلا عزارت قدي جدو مصطفى نول مكة يا الله هوت خوارق هدات جلت سمما ليلة مولده للكفر يلاو كرو بنجول مكة فيني مكة bii bi sërëyi yowmal wilaadati lil muxtaare law lama badal mustafa niiraanon xamudat xaadat buhayratuhum lil hawliya law seen dex ya fer na keroog seen taal ya fay na gamaj te masla bay alfaramin boobaya law waay nu saawata réewam kursi gis na mu fer te musla law diggante xam daana ak ñooñ xumma ñëpp a gëlëm réewam xajam waaroo waaru ya law bur yàlla dàkku na seytaane am taajum ya sànni ko moom mbooloo maya law iwaanu kisraa أبو الأسلام منفده فقام قول أنه سروان يلو هي بطوين الرجل نيغم بغينا مبل ميبل يغينا تسر أوير يلو لير رسولك صلى الله عليه وسلم نقدر نطيب تاخيه تسمولو ما يلو لير رسولك صلى الله عليه وسلم ni gënu toj taax ya gas mbooloo mayanoow seen buur ba sarwaanu moo tabax ngir fonk jaamuy xiram waaye na yàllaw seen buur bu mag ba anoo sarwaan tabax ngir fonk jaamuy xiram waaye ris na yàllaw waddu samaawata ndox yay walwali sa ti deg te musulaam ndox ndi àlla tung la yàllaw laajal borom burdu lii ba seen jaaf mu dëggal saa te bey wolofal ngeen xam ko yàllaaw laajal borom burdu lii ba seen wax mu dëggal saa te bey wolofal ngeen xam ko yàllaaw kaana bi naari maa bil maa min balalin musnan wa bil maa maa bi naari yàllaaw xadis sanaarat bi nuuril Mustafa Baara xusuuru Qaysara ngeen day saam yalaw diggante umul xuraa ak Qaysara di melax waa saam di seenante ak waa Makka yalaw wasdaaday samsu nuuran qad halaa qamaran li mawlidil Mustafa muxtaari yalaw waxdaratil lardu bil milaadi yowma badaa waxat salaatamatil la waaju yalaw wa asmarat kulas jaarin li baddati waxat namat barakatul haami yalaw wa inda masqati rasil mustafa abadan tanfaw raabihatun lil yawmi yalaw wax dara sunnaasi fi raami wilaadati mahsarin wa yawmin mahasaati yalaw وضرب الناس في الهام ولادة من سيل يوم مع الساعة يلو مكان مولده قتيل يربو بزوخ ليل هلا مروي يلو bu yàlla doon na jëloon ak leer bu musla melax doon leer fa jant bi ñambaas leer wi yàllaaw leer bu musla melax doon leer ko jant bi ñal baas weer wi yàllaaw yanjal biddi wi ci biir ak bi bam na fayax fil mulki wal malako ti dëhra yàllaaw weer wi siikar jant bi sabaat bi diw yi di way garab yi me ñaat mi neex sab sab yàllaaw weer wi siikar jant bi zappal bi diw yi di way garab yi na ñaat mi neex sab sapp yàlla woo sabu sabaat si baloon boppam ba booba ba tey gadal mi sig gaa nga fay seen baat yàlla fa Moustapha timaloon boppam ba booba ba tey nga day misik gaana fay xëy baa teelaw xatam juddoom ba lu juddu yu góor jigéen juddul ca moomaat ngir ga màggal nguur ga yalaw way wute yaa gën a soowoo xaama mawlidi taarix ba nag moo di xaamal fii li yalaw mooyan maam laa tey tàggat ñeem di war ngir ma bi ka bëtë رب العرش يلو هل الملائكة رحمن يوم بدا مرنا بتكبية المختار يلو ملائكة يا غي دغان بور يالا غير بغا يور محمدا في السماء والارض يلو نير يا ربنا مرنا لنهمله إلى الجانب والآفاق يلو نجاي هل ما يلو noom lay ñaa nga may nu ndigal ilal abaati wal awkaari yàllaaw ngenaa na yàlla noo yor Mustafa ko xool filu ganaati lu malkuli yàllaaw ngenaa yenaa yàlla noo yor Mustafa di ko xool filu ganaati lu malkuli yàllaaw buur wax na leen bilisaanil xaali ñépp be dem allimatu sahdi moo yor Mustafa laaw wadda rabi duri sadiyaa waal ba nahoo yónneen ba sax weenu nday joora waaye laaw xalimatoo yor rasulullaahi yor bu rafet kem yaaya la ko nampal fernaaya laaw xalimatoo yor rasulullaahi yor bu rafet kem yaaya la ko nampal fernaaya laaw zuway batun mas na koo nampal aboo laabin goreel ko ngir lam ko nampal wóor naaya laaw bur yàlla fay na ko tax fiiful xasaabi xadam ci jëppaal te ne ngir njool ma kaalaw ci yetti ci weer la taxaw ànd ak xelel ya di dox juróomi weer mu dëhër na sëkk yàllaw màggak bi sa moo di màggak weer ci doomi arab weeram jaaw mat atam dibleem fayalaw màggag bisam moo di màggag weer ci doomi arab weeram jaaw mat atam dibleem fayalaw wa kallama naasa takliman bi daatihi min ashuuri fasiyan utqiyalaw ci fukki weer la ne càndam lompañu lafañu di berberi wax di waaxuy wey fayalaw ci fukki weer la ne càndam lompañu la fa ñu di belbeli wax di waaxuy wiy fayalaw malaaka ñëw xar dënam tabal ca yaari loxoom raxas ko duy ko yiggam muy waari ayalaw xaatim ko tampe ko fa baatin ba peese mu wat junni malaa'ika fii diwaani ayalaw xaatim ko tampe ko fa baatin ba feese moo war junni malaayika fi diwaani yàlla woo xaatim ko tàmpee ko fab baatin ba feese moo war junni malaayika diwaani yaa laawo xalimatoo ko feral bis ni xaaliqinaa ñu fab ko delloo keroog waa ma kaya laaw keroog ndeyam bég na mbég xam ne ëpp na ma fab ko góon tapp tappal xol ba ya laaw yeneen teeg faam ànd ak ndeyam na melas ilal madinati xaw fal makki mu yor ko bu xatul mu talli ba màggal yor bayalaw baxin baxin la ko wax màggal ko te moo di te ëske war na yàllaw baxin baxin la ko wax màggal ko bam ko gisee te moo yi te ëske yi war na yàllaw waa barin na derrière Moustapha karaman dëran daar bin saci yi min gayalaw وسلم بالذي عليه وروير بريان الله déglul maax la ba Abdullahi baay ba demee di tukki yëkkri ba far dem faatu yàllaw Abdul Muttaliba maamam faatu yooyale fan la def jirim bu njërëm ngir ndaw ga yàllaw te moomaat moo juróom yetteeli at ya mu am Abdul Muttalib maamam faatu yàllaw juróomi at mbaa juróom bennam la day jëna mes mu dib jiim xamatul waajur fa yàllaw baat ma jeexee la wànnen gët yi ba daj Abdul Muttalib ba faj wànnen wa yàllaw noonam yanaa waa jiim bi xiba bay xala rëy mbaa maru rëy Mustafa naas bi yàllaw noonam yanaa waa jirim bi xiiba koy xalaray mbaa ma ruurey Moustapha naas bi yàllaw ñu jox ko baayam Aboo Taalib mu yor ko bu ko foggaat ko rey noonam ya yàllaw ñu jox ko baayam Aboo Taalib mu yor ko bu wér foggat ko foggaat ko rey noonam ya yàllaw jiital ko xejjal ko fa bali jox ko mu yor ba man fukka yaay ci ay at wóor na yàllaw ca moomaat la laxas jóg makka mur tay lan dem réewi saam ngir pexem yii fa yeyalaw xadijatul boole goog sàkkam ba may saratam li xidmatil Mustafa Muxtaar yeyalaw bés bam demee saam la la dem saam dal di taxaw naa riw ma kii mooy Rasuulullaah yeyalaw bés bam demee saam la la dem saam dal di taxaw maa réew ma kii mooy rasulullahi yàllaaw haasa rasulun nabiyun sibtu mudrikatin muhammadun naglu habdullahi yàllaaw keroog la la defanaa gis naa meloo mi gisum téere cosaan moo di xayrul xalqi yàllaaw gis naa garab yi sujjóot ak doj yi weñ du ko dal tànkam du feeñ lut ci aw doj bir na yàllaaw gis naa ci moom xaatima yonent kenn du ko am ku dul muhammadu abdullahi yàllaw gis naa mu toog fi garab goo xam ne kenn du ko xam ku dul muhammadu abdullahi yàllaw gis naa ci biir géej yi xol goo xam naa ci mandarga yooyu tawriit wax na ko ak jabuuru furxaanu wal injiilu yanaaw leeram nga sànne ci suuf dem sa ca bu jógaa malaaka yaag ñii ye ànd ak fa yanaaw leeram nga sar na ci suuf dem sar ca bu jógaa malaaka yaag ñii ye ànd ak fa yanaaw keroog la labbe ba yendoo dénk may saratam bisidqi wal asmi wal ixlaasi yalaaw keroog la njool màkka xëy dem ñibbi màkka bu wér ngir werandeem wa ca la saamba yalaaw koy xibaaram li ahli saami yalaaw koy xibaaram li ahli saami yalaaw mu naa ko baaraka rabbul harsi fi sabari tijaarati rabbiyat filaami yallaaw ca moo la rasulullahi tukki yaman handak subayrooki habbaas baaya yallaaw xadiijatun dellul laa jaar foofa may saratan lum dégg labbe ba njool makka yallaaw mu wax ko lam dégg ak lam gis firiifu gowat kii mu gisaat ak ki xar foofa yàllaw xadijatun dal di gëm njool màkka dal di ko boppam na jébbulu naa lillaahi yàllaw njool màkka nangul kaa njébal te xam la mu fas moo tax mu yor bi ismillaahi yàllaw keroog la baayam aboo taalib dagaani ko far may ko njool màkka mooy xaawam ba yàllaw booba tolloo naag ñeneen fukki at njool makka ngi teg juróom mooy at yaya laaw teewul xadijatu taawloo foofa faatimatum ñu jox haydara gaynde góor ñaya laaw teewul xadijatun taawloo foofa faatimatum ñu jox haydara gaynde góor ñaya laaw mu dellu ummu kalsuumin wa zeynabuha roqiyatun ñi la xam xëysaatu yàllaw roqiyatoog ummu kalsuumin la boole joxoon usmaan bañ naa ko soo nuurey ni yàllaw doomam yu góor di qaasim tayibun la ca teg teg la xam xëysaatu yàllaw yónnan ba teg na ci ibrahima maariyatun mooy ndaje xibtuyu mooy xeetam wa yàllaw yónneen ba teg na ca ibrahima maariyatum mooy ndey xibtu mooy xeetam wa yàllaw yal na nu bur yàlla may ay doom yaa ndëkkiset bi jaayin wa bi jaayihin na yàllaw waa karim na dal yàlla karaman دهرا دار بالسكي من قالوا وسلمنا بتسليم هلي بي ورويره بريان يلاو وسلمنا بتسليم هلي بي ورويره بريان يلاو دقلوا المخلص ba dund ak Moustapha Gamate fanweeri at ak juróom lam daj fa yàllaaw déglul maax la ba dund ak Moustapha gamate fanweeri at ak juróom lam daj fa yàllaw taarix ba nag moo di seyli boo ko xamul ndox maa waroon Makka réew taaxam ya yàllaw réew talaayi fonkam yeyi jiwi ku di toj jiiru ku di toj jiiru Quraysin di ñaan ngiriwul rew ko batalaayi ponkam yey géwii ku di toj ngiru xuraysin di ñaan ngirul mayalaaw ca moomaat la xuraysin boole ci alal tabax ko far salaat ponkam yeyalaaw keroog tabax ga budul kon Mustapha bejoo fi najjil aswadin mahroo fi yàllaaw baxiili xaaraja jàppoo man ña fab yu xuloo ñu fab joel mbir man lil muxtaare yàllaw daxil xaari ja jamba ñu fab joel mbir man lil muxtaare yàllaw dañ doon ku tabbi ca buntu baaba say bata muxtaar tabbi ca buntu baaba say bata waa ma ka jébbal ko doj waa ma yàllaw doj yàlla fii lu nu yàlla téere ya wax kuraan ba foot saaku am teeg yàlla yàlla woo dajoo saafo am keeg yàlla yàlla woo waa Makka booloo ne kullu naasi yaqbaloo haasa lamiinu bi haasa lamri yàllaw Muhammad doj ne mbooloo mépp nañ ko ne cas tabarukan Makka barkeeloo ko yàllaw yónneen ba fab koog loxoom te fee mu nekk ba ليعبدوا ربها سلبيت يلا وأقرب لنا المصطفى كرما دهرا دار من سجين من قالوا وسلم بتسليم علي بي ولوير بريان يلا ما وقنا لك تسان الكعبة قاتل تخيو مولد وقلقو دكو قتل فيلاو ma wax la lëf ca cosaanal kaaba gaag la ca xew mawlid waxul ko dëppoo gàttal fa yalaw way wute yaa ngay werante kay di de wax ku legga liggéey ca baytillaahi yalaw way wute yaa ngay werante kay di waaye ku jëgga liggéey ca baytillaahi yalaw nenañ ñëw jërum bayalaw gannaaw ga maami rasulullahi gannaaw ga maam sunu ibrahima ñëw taxawal kenoom ya moog doom ja ismaila ga maam sunu ibrahima ñëw taxawal kenoom ya moog doom ja ismaila yalaw wax nañ ne maam sunu ibrahima lam tabaxoon juróom ñananti xasab guddaay bayalaw gannaaw ga buur ba xarab bu ñaaxa maali xatan moo tabax koñ yow wal def jàkkayalaw gannaaw ko bani jurum nga ñoo ko tabax yokkaat ko bam yaatu wóoral koñ yayalaw gannaaw ko maam moo di xusay moo tabax bala foŋ def xutbayalaw gannaaw ko maami moo di xusay moo ñëw tabax bala foŋ def xut bayalaw gannaaw ga jiiru xuraysin yokku nañ ca jago juróom ñaan du xasa li dooni yàlla ak ci borom tuba gannaaw ga jiiru xuraysin yokku nañ ca jago juróom ñaan du xasa li dooni yàlla gannaaw ga lañ wax ne abdullahi moo ko tabax ibnu subayru bi isnillaahi yallaaw resal na ya fetaat buntu yokku ca kaw juróom ñanantu xasab bam gudd yallaaw seen boole ni te juróom ñaar lañ tabax ba fi tey caay xasab mooy guddaayu néeg ba yallaaw xalifa buñ naa xajaaj moo mabbalam tabaxoon toj ay kenoom reylu abdulaahi yallaaw gannaaw bu gàddaay ga laqee junni te colu mat fanweeri at juróom-ñaar wóor na yàllaw la dellu mabati ngir am yul ci weeru rajab mbaa ci barax lu halal mari yi yàllaw waa makka ñaa ko tabax boobee ba tey sa jotul xam sax waram téere yee wax lii fa yàllaw waa makka ñaa ko tabax boobee ba tey tëjatul xam sax waram téere wax lii wayalaw waa karim badal al Mustafa karamal dayra daal bin sasin min gayalaw wasalee na bi taslimin alay bi warawiira bi yalaw su ngeen xamul at yoon nan am ci àdduna buur yàlla yónnee ko bil ayaati yàllaaw su ngeen xamul hat ya yónneen am ci àdduna ji buur yàlla yónnee ko bil ayaati yàllaaw su ngeen ma dégloo ma wax leen hat yàgg la ca xew ak ba jibril ñëwee bil waxi yàllaaw yéen a ngeen fukki at la yam ñu yónni ko far lil insi wal jinni wal amlaaki yàllaaw njool makka bam laa gisee jibiilu daan na géwén mu mat juróom benn weer bi na xiyanaaw mbiram gën tam raw de bees raw téléphone day dugg xalaaka woo fil xaareelaaw sama ba njool makka duggee xaaru xun ci manaa hamdan wa shukran halal muxtaar yalaw mu nekk fay jaamu ربنا زي فن بالشكر والفكر وتسبيه يلاو بدين مام سن إبراهيم لن كجغن بيال يوني فبس جبريل يلاو كيرو كور لكو جبريل فين وهيو كبس كيفو كيفا نجرم نعب ورنا يلاو ci weeru koor la ko jibril feeñ wayu ko bis ci fukki fan ak juróom ñaar wóor na yàlla ci laylatul qadri fii lis ni ci waxe la Mustafa jëkk a gis jibriilu yàllaw ay wuute am na ca ngir mawlid ba na ba ni te juróom ñetti fan ciw gàmmoo yàllaw way way xiiri xaala ya way xiiri xaala ya ñag naa la ñaa naa weeru koor la way xiili daa leeñag naa weeru gàmmo la ñaa naa weeru koor la ko jibril feeñu yàllaw ñaanaa kasum ci rajab ñaanaa ci gàmma yebul yàllaa ko xam moog rasulullahi yàllaw ñaanaa kasum ci rajab ñaanaa ci gàmma yebul yàlla ko xam moog rasul lu looye yaa naawoo ci rajab ñaana ci gàmmu yebul yàlla ko xam moog rasul lu looye yaa naawoo ñaar naa juróom-ñaari fan lay doon di altine bis ngir altine di bisu yonen ba law jibrilu ñëw mu rasulullaahi naa waxal jàngal ba mu yetti yoon muy log law mu naa ko man masumaa dal jàng booba ba tey annaa nabiyun ummiyun wóor naa law jibrilu tabi ca biir gémmiñ nga mu dal di wax xalamal insaana yàllaw jibril naa mustafaa iqra bismi rabbikahum yaa ayyuha mudassiru taayiru law waasiri naasa bil quraani wadu ilaa sabiili rabbika bil aayaati yalaw waasiri naasa bil quraani wadu ilaa sabiili rabbika bil aayaati yalaw jibrilu tëb daldi ke daa doño fett di wal jibrilu jàngal ko foofee njàpp yàllaw jibrilu jiite ko foofee ñaaru rakka ne illa samawaati fil amlaaki yàllaw njool ma ka jekki ba daylo yetti waxi luyu ba xel ma del see mu ñëw saabal ko yàllaw njool ma ka jekki ba daylo yetti waxi luyu ba xel ma del see mu ñëw saabal ko yàllaw njool makka jekki fa tey lox yetti waxtu yu mat ba ma del see mu ñëw saabal goyalaw waraqatun wa xadiijatun wa xayruma ñoo jëkk a wax naa ko mooy jibriilu yalaw ñu teg ci ay fani fan jibriilu neeti jalañ maa yaa musamiruxum yalaw yalaw ñu daal di xam ne rasulullaay ñëw na bu wér njëbbal ma dal wax yu gay tukkee goyalaw واضرب لنا المصطفى كرما دار الدار بالسجين من ذلو وسلم بتسليم علي بي ونذير هبي ريان يلو دبلو كرم مصطفى وتي كمكة يو كجكك مصطفى تيغور ويلو هو الصديق rafiqul xaara wahdahuma mooy bàyyi isatin moo gëm fa yàllaw abo siraafi mina sigaari moo jëkk a gëm ca ndaw ñawoon ca quraysin siiw na yàllaw wam nu xammi rasulillahi boo ko xamul saw jut ba tooli xalil karamalaw jigéen ñawoon ca quraysin mboole seen nañu daj xadijatoo jëkk a gëm yonam ba yàllaw bur yàlla xar na xolam tabal jeex ma danaa xel ma du xel xeli lu njool ma sayalaw Seydu mu haarisatil mawlaa bi moo jëkk a gëm tey kuñ boyal bi rasuulillaahi yàllaw bilaalu moo jëkk a gëm tey kuñ yilif abadan bànnoo ummiyata soo woo nañ ko yàllaw yonnan ba wax naag ak yi bikkin ba ñëw di ko jot mu boole ko njot ga jox yonnan ba yàllaw njol makka far goreel muy noddu waxtu jot bur yàlla far goreel fi naari yelaw sama ba njol makka wujjee yàlla noddu ga jot bilaa la noddu ca jàkkay tey ba yelaw ashadu anna muhammadan jaran na ko jib jàkkay madinatu jooy farxaacu yelaw ashadu anna muhammadan jaran na ko jib jàkkay madinatu jooy farxaacu yelaw keroog la daal di bàyyi noddam banam fa bawoo noddul ca jàkka ja ngir njool ma kayalaw waa daaril maadari almustafa karaman daaran biyar fin sasi yana minka ya allah لي منها ليه به ولا روح دير رياني يا الله ما دل wax leen ba ngeen xam gaay a jëmbuloon ñu jëkk fii lislaam yi yalaw ma dellu wax leen ba xam gaaya jébbul ña jëkk gàddaay ga fii lislaam yalaaw Usmaan a jébbalu soon noo rëy moo jëkk a gëm bannoo ummiyata seen askan wa yalaaw soodun sayidun wa daradun subayru moo kasaw maaw fin ñu lee gëm yalaaw Iisaa ba ñooy hasratun yalaaw ñii fukk lañ warlu loon aljana warlu wér yal na nu jéggal jëseet njéggal gayalaw ku fukk dañ daa beroog yonnan da ngir garagal dina bu yéefar ya seen ak jaamu yalaw ca moomaat lañ dugal le moomaat lañ na buy julli kenn du biral sàkkaa di noddu walay li xaame yalaw ca moomaat lañ na buy julli kenn biral shakaani nodd walay liqaama yalaw fii daay lañ xam ne yonem nekk ay fani fan moo gaa yi jébbalu woon ñi jaamu yalaw keroog la yàlla yebal mu fekki omar mu tëdd bis mook aboo jëlin fa yalaw mu daal koy nes tungub liimaan daal di ne mes mu yeewu romb aboo jëlin fa yalaw fekkoon na yonen di ñaa naa yàlla yaari omar yooyee ca makka mu jël faalooxu yàllaaw bésu keroog la omar nasruuga ñëw na nëram toj tax ya noddu liqaam ñuy julli yàllaaw fekkoon na sayidina am sa du jébbuloon ca bakki démb sa mooy baay tax ba yàllaaw njool makka bégg naa keroog waa makka meer nañu ngir lislaam taxaw na keroog bi diini yàllaawo ñool ma jabet na keroog waa Makka mer nañu ngir lislaam taxaw na bi diini yàllaawo fekkoon nañu ne bu seenu jaam ay at yi at cëm ya jaat la ca mawlid wa wayalaw ba bi ma loolee bi la wàccee ca ma danaa fas da bi ma jooma rombal gaa ya yalaw ba bis ba laaye bi la wàccee ca ma danaa fas da bi ma jooma rombal gaa ya yalaw bésab ca roog wañ ko naa faarooku saydunaa ليسوا داعسة الإسلام يلاو ويوم أسلم فاروق الهدى أمر كرم للإسلام تغو بدين يلاو فاروق ñoo daldi woo mbooloo ma ñépp taxaw li diini wal haqi wal islaam yelaw mu toj xërëme saxal tawit ja ñépp wedam kenn dootu léewtoo rasulullahi yelaw lislaam taxaw temm kiifar daanu faf na jiim njëbal ma dal saaba yey xas woo feelaw lislaam taxaw temm kiifar daanu faf na jiim njëbal ma dal saaba yey xas woo feelaw jibrilu ñëw na keroog njëbal ma ngir nga xamal waa makka homar fil jahri yelaw mu alliman al islaam al fataa homarum busra li ahli samaa wal ardi yalaaw ca gëttu loole aboo jahlin yu met na ko bis ñëw bett saaba yo moo yéefar ya yalaaw ñu dal di dër dal di xeex ak ñoom ñu daw ba nemes soo dubdu abdi waqaas doo leen ko ñu dal di dër dal di xeex ak ñoom ñu daw ba nemes soo dubdu abdi waqaas doo leen ko kew la gis doomi keroog la jëkk a gis daan di yéef a jëkk a dóoru bu wér waa lislaam ya yàllaw keroog la gis tuuru bu wér ci seen diggantee ci waa waa lislaam ya nañ bilaalul te dóor xabaaba dàq fa nit dóor nañ ximaar doomi yaasir foofa yàllaw yaasir ci duur yàlla faatoo Mustafa ko julee ñu rob ko tabbal ko fil jannaati yàllaw bésub keroog laa boo jali ndi xaacu ba jam jigéen ba sim yata ngir bañ nga joppu ñëw ko la xàccee xàcc jëm ko ci pay ngir bañ mu ànd ak rasulullahi moo jëkk faatu ci lislaam tey jigéen ju sëyut yónneen ba tàbbal ko fil janaati yàllaw ca moomaat la balaa ak mbas mu kenn gisagul ñoo ma ka jeexal ko faaga gal ko yàllaw ba mbas ma teesee ñu xëy gàddaay ilaa habasin yéewam na jaasi buurab jeya yàllaw mu daldi laqoo boo taalib mu haar ko bu wér ba yàlla delloo ko moog saabaam yaaya laaw ca moomat lañ digal yonen baa ñu ko dar xiyaamu baydin min assaati ya laaw ca moomaat lañ dugal ay naafilaaki xalam a ñaaru rakkay suba ngoon wóor na ya laaw di wàccay laaya fi quraan yi tey na saxal ayatin dugalam min xabri ya laaw wa maata baayam aboo taalib ca moomalaat ci fukki fan ak juróom ciw kor yàllaw xadiijatu nag aboo taalib mamaatuluma fukki ñat mañ ko yónnee wóor na yàllaw mawlid boobu nege ñaar sabaane moom la ñu wax ne weeru góor la ca haaman husni yàllaw mawlid boobu tege ñaar sabaana moom la ñu wax ne weeru koor la ci xeemal wu si ne yàllaw mawl da wuute na ca sabaana moom la ñu wax ne weeru koor la ci xeemal wu si ne yàllaw kenn ñetti fan lañ rawante ndaw musiba mu rëy balaa batar na xalal asaabi yàllaw ca moomat la rasulullahi génn werat sëy doo ko sant mu dem taayu bayalaaw loolaa di ñaareeli gàddaayam la téere ya wax leeral na taayu ba awaa di ñaareeli gàddaayam la téere ya wax leeral na taayu ba a saxi bayalaaw yi fa dee dam nañ ko moom nañ ko ay doj ba xaaj war nañ bayalaaw njiiru Quraysh di xas yonen ku nekk di wax ñu boole koo gàllo yaa saay saay sayalaw ñu xëy kóor di ko sànniy doj ñelay cori yit ba yaari dàllam ya réexoo damm yàllaw ba mu jàq bay buur yàlla ak wàllu far ngir yaa xas yow jam-jam yayalaw maa ngi yàlla wa jeega yi far na jalal ne Mustafaa noo ngi noolay wallu yàllaw malaaka yi yàlla wakkee doji faf ne jaser ne Mustafaa noo ngi wallu yàllaw suñ yaar ba yañu naa fii lax sa ñu la muy fop këpp yéen ko ñu raat falal la muy fop njol makkoon fa malaaka yi doj rahmatahu nan leen yërëm ndax ñu jur ñuy topp yàllaaw njol makka woon fa malaaka yi doj rahmatahu nan leen yërëm ndax ñu jur ñuy topp yàllaaw mboolem malaaka ya dem yéefar ya dem na tisal njool makka ak seydu way taarif ba yàllaaw taarif la jibiilu wàccee saaru ji ne mu ñëw jineem ya jébbulu ànd ak nit ña yàllaaw xisab jineem ya xajul fii ci réew ma ko wax wawul ko da koo neenal fa yàllaaw yonnam na fa taay am faren ba déwén saa waay si yàllaaw waa daarin naadari al mustafa karaman الأنبياء في السسي ينامرك يا الله وسال يطلع بتسليم عليه به وروي راهبي ريهاني يا الله la rañaa naam Mustafa ma ñu dem yaa sama mook Jibrilu yaa laawoo dañuy dox la rañaa na Mustafa ma dem illa sama waati mook Jibrilu yaa laawoo ni te juróom ñaar ci guddi gaaw lañ ko na jas ci aw rajab jëme kaw muy wuy ji yàllaw juróomi weer maa juróom bennam da kiire ya wax la wuy ji yàlla xatam gadaay ga yàllaw juróomi weer mbaa juróom bennam la kiire ya wax la wuy ji yàlla xatam gadaay ga yàllaw soora la mii maa la mii ni ji waxëri fawqa la mii ni mbindam seex ban ba yàllaw solo lamiini maa lamiini ji waxari fawqa lamiini ñu dem Cheikh Bamba yàllaaw solo lamiini maa lamiini ji waxari fawqa lamiini mi lamiini maa lamiini ji waxari fawqa lamiini mi dem Cheikh Bamba yàllaaw jibrilu ñëw di ko woo naa yaa amiinu wa yaa maamoonu yàllaaw ñu te juróom ñetti fan jibrilu ñëw di ko woo yaa amiinu wa yaa maamoonu yàllaaw rañaana makkata jaar baytil muqaddasi war fawqal buraaxi niyoo yonen yaa yàllaaw bur yàlla digal na yonen yëpp yëpp keroog ba julli ànd ak rasulullahi jibril toog ak rasulullahi fas la ñu wéy ba muntaha mu yow fa yàllaw mu xar yaari kiiraay yépp wuntu ya toj mu soppi kow xàll ngir xar ya yàllaw mu romb si asamaaw maam sunu aadama jóg sukkal koraamal ko moom mbooloo ma yàllaw keroog la gis wuy nu weex ak wuy nuul nekk def ñaari jow seq sunu maam aada yàlla raw keroog lay ak ruy ñuul nekk ñaari joor seq sunu maam aada yàlla raw jibil na way yaa ngay ree di wekk abadan sabaan ya jooy nañ ba ñuul kaay ra mu yàlla raw foofee la gis góor gu màggat yor jigéen ju kumur ña kaay muy daw ba jibrilu piskone boo wujjee sa xeet wu raw dawal bu baax àddina ak iblis a yàlla raw mu romb ñaareel gis isa ibnu mariam ak yaxya la si yootiyel ukaama yàlla raw keroog la gis aw jigéen ñii mooy jaaduna ji ñi rekk seen ween ya ñuy xandaalu yàlla mu dellu gis foofa góor ñuy mooy ci àdduna ji ñu yëkk seen génn ya ñuy xandaalu yàlla moroom ñetteel ba ànd taar ba yoo suba jóg raamal ko leer ya gandoog leen xar si yàlla keroog la jëlal kuréel buy yóbbu yàpp wu dem réere métti mu kenn toggul fa yàlla keroog la gis ab kuréel buy romb yàpp wu dem réere meddi mu kem dogul fa yàlla mu laaj ko jibril mu naa ah, mooy gaaye denc jabar te dox di wut lu ga yàlla idris yeneen ba daa dëkkee gurus abadan ca sus genal ceel sa lañ féroo fa yàlla idris yeneen ba daa dëkkee gurus abadan ca sus genal ceel sa lañ féroo fa yàlla keroog la gis ak kuréel bu wan xala ba den muy lakk seeni butit ñu yuuxu yàlla mu laaj ko jibril mu naa mooy gaaya lekk riba tey fab alal ci jirim tey tooj ba yàlla Haaruna yaa man la yónneen man ko romb di wéy ci biir juróomeeli kiiraay foofa yàlla keroog la gis ak kuréel bu yàpp seenu yaram ñuy si sa seen ak seen gët ya yàlla mu laaj ko jibril mu naa ah, mooy garbo ya jamutuñ tey rek a joo ko wëree luy faaru yàlla moo saala si kàllamal mawla taxaw nañu ngir daaroom ga man jaajuróom mbeneel ba yàlla موسى الذي كلم المولى تخون ينجر دارم لمن جاجر بين البيالاو كان نجس تبي الله خمنا من جارس ñeneen di koy yadi xel ndox la keroog la gis pavillon boo xam ne man caaras ñeenti koñ ya di xellim ndox fa yàllaw mu laaj ko jibril mu naa mooy ndox yaal janaam ñol ak lem ak soow ndoxam ñuul maa ngi yàllaw mu romb maam sun ibrahima gëm njëkkëroy maam ca na toog ca juróom ñaareel ba yàllaw keroog la gis ay malaaka yi buut yu sàppe taxaw te mosuñoo sëgg ngir njool ma ka yàllaw mu gis malaaka yi sujjóot zëgg jëm abadan te musuñu siggi ngir war maal ko yàllaw jibril na gaaya sujjóotam siggi leen te nuyoo ña taxawal sëgg ngir war maal ko yàllaw keroog la joon ma julli far ko dugal julee di jaamu malaaka yàlla yàllaw keroog la jool ma julli far ko julee di jaamu malaaka yi yàlla yàllaaw jibril gunge rasulullahi bàcco ba rëy li sidratil muntaha gis yàlla yàllaaw muy xotti diile ya leer ya jolli tabi aras ak kursi yoog malako tilaayi yàllaaw foofee la gis xayim ak buur yàlla muy bind kun di kerkeri bind xattey bir ya yàllaaw bu yàlla di gis rasulullaay leer ga taxaw ba pey bara ga màggal nguur ga yàllaw yonen ba daal di nuyoo bu yàlla fay ko mu wéy mboole sabaal foofa yàllaw jegee na buur kenn xalaat quraan tee nga wa naj mi yàllaw jegee na buur kenn quraan طيب ونجمي الله mooy xaaba xaw say ni déglul dem xamoo ko bu wér bur yàlla moo sopp yónnem woo ko yàlla tero la fab sàtt lislaam yépp jox ko mu yor ngir fonk yónnem ba ak xeetam ba yàlla juróomi julli seen ab lim reen na ba mat juróom fukk ak naa fi lay ba Moustapha dellu see Moussa teral ko bu wér sargal ko laaj ko boroomam foofa yàllaw yónnee xibaar ko la dogal ci ñoñom Moussa digal ko ne dellul wàññi yàllaw sa xeeti kat xattanuñ boobeeb dogal abadan te yàlla gat loo ko laaj xam loola yàllaw muy dem bi del si ci Moussa ndox diggante ba far ay yoon yoon ba ñu wàññi julli yàlla juróomi julli yi foo leen jullee am nga lu mat yoolab juróom fukki julli booba yàlla bur yàlla kay yàlla na fay moo saa moo jëkk ma fay moo saa moo moo jëkk mi fay mbooloo me yàlla la fay moo saa moo jël ku ma fay moo saa moo mujj mi fay mbooloo mi yàlla woo fay Mustafa moo ma fay mi Mustafa lu rafet gannaaw ba yàlla Seex Bamba yàlla fay Moustapha maa ma fay mii Moustapha lu rafet gannaaw ba yàlla fayee Seex Bamba yàlla waa tari na dajal Moustapha karaman dëran biardin sa siimin ka yàlla wasallee na bi taslimin alay bi warawi go di rayhaane yàlla déglul maax la ba yónneen dellu see jóge kaw min as-samaawaati lil adina yalaw ba ba setee sadaqa sidiq moo jëkk a gëm rayaan ma lu mbax mu dëggal loola yalaw wakka sabaru xuraysin ak bon kaboo jëlinte wax mu weddi loola yalaw ñu réer ñaan ak aboo jahlin di weddi ba tey baax ñaan ak abi bikrin ba lislaam teral na abi teral na Omar tuubaa fa tuubaa la naa yàllaahu yàllaahu kéefar tëral naa boo jahlin te kenn du ko fa waylun lahu yàllaahu keral la biinu ibnu ab jabar la buy jabar def ko ci fas bi jaaw daj boole koo kawar ak yonam yónneen ba mel ni ku dof kem fukki weer layu mat ak wenn weer lii la mawlid wa fayalaw way xili xaala ya ñag naa fukki fan ñaa naa juróom benn weer mooy ndof fukki laaya yu mat ak benn mooy fallaxin wa naasi yalaw kay dof na kenn ko bay xëli yaay dara moo gis mbir ma yalaw yi fa ya ne yoon nem doom na daal see wa naj fi islaami yàllaw ma dana saahibukum moo leen tëral ñu wa ma habibi bi majnuunin fa yàllaw ku àndul ak Moustapha mooy def te kenn ko faj day say ba far daan kàmbag naar ya yàllaw la rasulullah yi taxaw di woote woote bu wér li diine yàllaw ca moomaat la rasulullahi daldi taxaw di woote woote bu wér li diine yàllaw xam na saaba ya ñi war réew ma di wax di dem ca xew waat mbooloo ya ca moomaat la ko lan saa topp topp bu wér lu mat juróom benn faaris gëm na yàllaw lu ma fukk ñaar taxaw jaayante jébbulu bar diggante xasraja ak waalaw yi yàllaw saddu mahabbasatin moo jëkk a jébulu far ak ñaaru mag ñu jigéen fi law si yàllaw abu amaamata asad te caraatu ak rafaahatu xawfin ak hafraabu yàllaw cere na yónneen ba yónnee ak ka ngir nañu gëm nag dikk jébulu mbaa muy forsa yàllaw saddu sayidun maa fi laa i masabu ñoo jëkk a woote jeeg njëbal fa yàllaw keroog la saaba ya booloo jëkk julli bu wér julli jumaa ma sabay seen njiit fa yàllaaw seytaane mer na keroog ba jooy na di xul di yedd mbooloo ngir seen gëm ka yàllaaw waa darit la dal yàlla mu sabaa karaman dara daar bin sadin min ka yàllaaw wa dal yàlla bi taslimin alay bi ونذير بريان يلو دقلنا وغلا أدم قادا يا كل شخو xarbaax ya yàlla woo giru Quraysh dañoo booloo daray ko mu wér mbaate ñu génn ko muy dem faw wa yàlla bisu keroog la Abu Jalin di ñaaxi banaa kuréy Muhammadu am lëf tey wa yàlla bisu keroog naka ñëw seytaane soppi ku nit di leen fexeel xëy yi réewam nag di yalaaw keroog la yàlla yebal jibriil jox ko ndigal wasal fa ay laaya jox yonen ba yalaaw laay wa shamkuroo ñoo wax ko lépp lu xew bur yàlla faf na ko gàddaayal fa yalaaw bésu keroog la rasulullaahi daldi laxas ilal madinati gertal ma ka yalaaw mu wolu xaliyu jamaaram janaa ko tëddal ci néeg bi maa ngi rañaan dem tay bayalaw alli yooyu dara jàmbaaram ji tëdd bu jël calal ba tey way rasulullahi yàllaw moom ya gaw kër ga tey xas Moustapha ne melas fab suuf sëlëx leen ñu raw way dee yàllaw mu dal yooyu moog ak bii bikil ña des di xaram ba ba setee noonu yàlla yàllaw yàllaw lii du njabar du lu kenn xam ay xiram du ni mel xar baa xitam du ni mel lii raw na yàlla yow daw aboo jaalin torox na berus seen goote yàqu na na yàlla yow na aboo jaalin wa makaro wa makarallaahu kayimu naam seen fi ne na ca kaw wóor na yàlla yow ومكروا ومكر الله كريم هم seen firarax na ca seen ko wóor na yàlla yonent ba ànd Abu Bakrin ñu yokk ca dem xaar yendoo nelaw tey sant yàlla yéefare jóg di xañum tànkam te naa ku ko gis am lii ci laa mbaa nga am laa mbaa sax nañ fa kem ñetti fan ñoo xam ne kenn yëgu leen lu yàlla ak ñetti nit foofee fa yàlla asmaa doomi abi bikin da daa di topp guddi di baayam fa yàlla yow waamilun te cabilaay daa nañu dem kii day xibaar kii di naanam ga yàlla kii mu gisaati rasulullahi yàlla yow garab gu sax dal di def meññet te law ne tërës te tax ma tàgg ca dal cay ñaan ba yàllaw jàppoon te ñu ko moom dal bu safaari bir xanaa ma may xërëm lii woon na yàllaw sànnu maama wa sànnu an kabooti ala xayral bariyati laa jël burdu yàllaw waa taare naa dari المصطفى كرم دارا بألف ششي منك يا الله وعكرت نادري المصطفى كرم دارا بألف ششي إن منك يا الله وساليتنا بتسليم عليه به وغير هبير يعني يا الله دبر بغلاد أسرب يوم كبير ما خم ci mawlidil Mustafa Muxtaar yanaw kera ba yonda dañaane xaaru bay bëgg a dem ilal madinati ca gental Makka yanaw kera ba yonda dañaane xaaru bay bëgg a dem ilal madinati gental Makka yanaw keroog la kunte ma jooy ba ñëpp dégg mu naa yaa Mustafa yaa rasulullahi yàllaw mu war gëleem gu faraw boo xam ne def na séréw sol seri weex ne féréw yàllaw yàllaw danañ gëleem gu ñu umam la waroon ñaanaa maat baaw mbaa xuswaafa yàllaw yéete naaga la yona xam te bañ ko gisul gelle gëdul naa nafsul bañ faatu Abubakar wal gëleemam yóbbalam la ci saw ñu ànd tey temp tey rabal fa yàllaaw keroog suraaqata moo leen jot di leen su daal di koy modd moog jàkkeer ja yàllaaw mag naa lamaanu lamaanu Mustafaa yërëmal bilaayi dootuma gaaral faw wa yàllaaw jaabal te raab raab yi far cëram ya la faw wa bésu keroo kum dajeel doo dab rasulu ba tey te doo ko sóolooti moom santam ba yàlla yow bésu keroo kum dajeel doo dab rasulu ba tey te doo ko sóolooti moom santam ba yàlla yow ba mu sabaa wàcc xayma mu ba di im nu yoo ba bekk mu dem ngir soxla yàlla yow ba Moustapha wàcc xayma ummi mahbadihim nuyoo fa fekk mu dem ngir soxla yàlla mu daal di fay laaj lu soow ak luñ defar ci ndawal ngir bëgg a jënd ñu naa xamtil fa yàllaw mu far ne leen yow yéen ab gàtt yët ma bu wow bu muslaam soow ma jooxal soow ma yàllaw ñu yët ko mu raay soow ma yàllaw ñu rati ba mbooloo mépp naan ba desal te yëpp fengat li lay kéemaane baydatu rasi bi daldi jébbalu far nasuuga ànd ak juróom ñaar fukk yàlla yenn mbaa daldi ànd ak gaa yi jébbalu woon ñu fukk a ñaar guddi lis nay ne lañ fa taxaw ci weeru gàmmu la mawlid wax fa yàlla saamañ fa fukki fan ñaanaa mutul fukki fan ay wuute am na ci bis weer wa yàlla foofee la jëkk julee tey xutba ñëpp taxaw jule jumaa ni la mawlid waaw waaye la asmaa u doomi abi bi ja nekk fa kër suba jur na keroog gàddaay ga yàlla moo jëkk tudd xubaa gàddaay ga moo di lëlëm ñu dal di koy tudde abdullahi yàlla keroog la war su ndama waa tey ba ñëpp taxaw mbooloo ma sënku ko leer yey jolli yàlla keroog la war si tombal waa tey ba ñëpp a taxaw mbooloo ma sënk ko leer ngay jol li yàlla muhaajiriin ak lansaar ñëpp di way maa maradan yaa rasuulullaah yàlla keroog jigéenu bànni na jaar dañoo dajaloo wut ay ndëndëg tabalaat ay xiin fa yàlla di teru rasuulullaahi ñépp di wax jaa basaar basaar min jaay law ku nekk naa sama kër la jaay maa gën a yey ci gan gu toll ni rasulullahi yàllaw yónnee na leen bu fi kenn soowoo na ñëpp weddam gëleen bi jibii la wa ma nos lu yàllaw yónnee na leen bu fi kenn soowoo na ñëpp weddam gëleen bi jibii la wa ma nos lu mu njël na ngeen xam ne foofee mooy barab bi ma jëm mu njël sommaat bat ba fii tànnal ma yàlla njool màkk wàcc na leen fii mooy barab bi ma jëm ñu jaay ko pàkkam ba moo jàkkaam ja yàlla njool màkk wàcc na leen fii mooy barab bi ma jëm ñu jaay ko pàkkam ba mooy jàkkaam ja yàlla te fukki dinaar yu mat ak ñaar la daal dina cas ci yóbbal ab Baabakar ju réew ma yàlla mu jënd kenn ba fa nekkoon biiru rahmata mooy kenn bi awat ba ko doom njublam fa yàlla moom it keroog fukki junne ñaar la daal dina jas ci yóbbalub Seydina Usmaan yàlla mu daal di dal bi yayoo ba daal di tabax jàkkay Madina fi ñëpp yi sant yàlla tabax ga ca fukki weer ak ñaar la li la ñu wax ci gàmm lañ fa lu mag jàkkaam yàlla tabaga kem fukki weer ak yaar la lii la ñu wax ci gàmmu lañ follu ma jakaam jayalaw bu deen ba cëg ama sam yay boole den ba déwén mu tëg di ciw gàmmu lañ àggal fa yalaw keroog la joot maaka kaagu waa madina ba day maaka madina yàlla barke borom Tuuba واكرم نظري المصطفى كرم دار دار في السفي يمنك يا الله واكرم نظري المصطفى كرم دار دار في السفي منك يا الله وسلم بتسليم علي به ونذير بريان يا الله déglu noox la na binda Moustapha mela mel ba mu tudd gën ji mbindéef gën ñëpp yàlla déglu na bindal Moustapha melo mel bam tudd gën ci mbindeef gën ñepp yellow xat kaan ak malawum xalxan waa aj malawum xulxan waa asdaxakum xawlan fa yellow jikkoom ya ñoo mat merom yaa tellu cër ya rafet ci Moustapha al mujtabal muxtaar ya yellow bu yàlla dee sakkuloon musloom ca gaaya weyum te dootu sàkkati misloo wóor na yàlla gàttul guddul xeesu lool loolu yàlla war a tal cëram ya mat sëkk buy dox su la yàlla moom daamawul defula nam joor riil na bëtax doxul waxul seddakul sëgul ba yàlla rékku lasul nooju loon gànkul te yelle siwul kaloor ya ko bàyyiwul moo jandi yàlla moo jëkkab taxawaay day kenn dinañ du xasab réem bi neex jaar njamal yàllaam la yàllaam ma jekka aba taxawaay day jéem ñaanoon tu xasab réem ju neex jaar njamal yàllaam la yàllaam ak jaaru yàlla wa ak siiña mu ñuul ma ko dar ak tuyu jëkk ya ak mu ñaay bayalaw mu ñaay ba dee sax melax gu gëb ci xiinu marax hee nga gàcceel na lampa gaaseelaw géem wa niilu bay sa beeru badriya din loxom bañ a maas pala baatam nga yalaw yéena mi sëq yi ànd ak njëg na far di melax la xam yu la taxe ak leraay bayalaw boppam bu mërgalu baat noppam yu rëy yëcca sas gënam ya muy ba teeg lamsal fa yàllaw mala bakkan nga ne fëni sam ne taali wurus sikkim bu jekk ba ak baasam ya yàllaw diggante yaari magam yaar xaasimam ba ñu daw ca diggi dokk ga muy saf sam fa yàllaw suufam yi yi yaatu yaat dojar yu tal yaat ke looram yoo ya yàllaw suufam yi jekk ya ak jaxam yaatu yaat da yaru taw yaat calooram yooyee law doxinu jekk wal ak ndaagam la tebb ma wal doxinu rafut lay dox bir na yàllaw waxinu dojoog taata mu neex ba mu yor lamiñu gàtt wal ak caleem ga yàllaw léegul barul dotamul nasul derul taqulam baatam lawul suulam señul fayalaw leebul barul dotomul nasul derul taqulam baatam lawul suulam señul fayalaw ndigam lu jekk la cay ndigal samaam la mu yor lu pam yi jekkee ak beeram yayalaw loxo mi jekkee ak waaraami saweke sax yee mu xof buy koy lewi yalaw moo neexu ban kun yor yoon di ay balak day saafanteeka jamanteeka yalaaw ku mu raay sa bopp nga aar nda barke foo mën a ku mu taaf li ñaa nan la doo doo joote saalaaw foo nga am ndéeg barke foo mën a jëm ku mu toog di ñaanal la doo too joote zalaawoo waatari na dalal Mustafa karaman daram daar fi sasiib min kalaw wasalli na bi tasliimin هلي بي ولغير بريان يلا ma wax fi nag ay jikko yoo xam ne tuut la ba tey caay soloob ya ca mawlid wax fa yàllaw xad kaana njool makka salalaaw laa ko mënal alay kulla la lamboo woon te te déet te fa te jàmbaate lamboo fulleelaw kersaa ci teggin la lamboo woon te nooy te dëgër te foog te jàmbaar te lamboo fulleelaw dadaa torox la di jaar dallam di dégg ko jam di jaar malaane di sol yi ñu daa bayalaw dadaa torox la di jaar dallam te dégg ko jam di jaar malaan ya di sol yiñ daa fayaloo di ratti gàttam ya ànd ak sa vieille fekki yi di yeewi naagaam di fekk baxlaam ya ca baxla ya ya daan di war ca daam ya di ànd ak nit ña yaloo yii saa mu sol baxanaam yii saa mu bis yii saa jartu di boppam neen fayaloo yoo saa mu tëdd fi suuf yoo saa mu tëdd ca kaw yoo saa mu jekki xaram yàllaaw yàllaaw si lekk day woote daawul gis mu lekk ci bis dem yaari yoon sakkaaya teeg wuur na yàllaaw si lekk faw ne bismillaahi door a dugal alhamdulilahi lay noppee fa yàllaaw yi saa mu lekk di bokk ak Baabakar wa Omar Usmaanu summa Aliyun bir na yàlla isa Useynu ka sallay woo wa Faatimatul isa mu bokk ci soxnaam wóor na yàlla mburoo ëppoon doole ci lekkam te daan na ko am ak nen ka saat tàndar ma yàlla da daa di woo laj koloñ da daa di woo laj koloñ ak diw di gis nga lu bees léeg-léeg mu tàggatoo wal ka wóoru yàlla dadaa di woo laj goloñ ak diw di gis nga lu bees léeg-léeg mu tàggoo toog wal ka wóoru yàlla soppal nay jaaro yuy def dog te daa na ko sol tey la ku njom la ca biir te xam la yàlla diggante day joor ba ak càmmuñ ba lépp a ci yem fu nekk daa na fa sol jaarom ba yàlla su lekk jël ca ci di dimbali sax ci bam ñamam mas la laal tenqam la yàllaw kenn mbaa ñanant lay naan du naan di taxaw mbaa ñëw mbaa ngant lay doon bir la yàllaw fay téefe daana ko mos meññet ya daana ca mos resañ sa beeb laal bu neex ba sañ sa yàllaw lii lépp kan ñàkkuloon lum lekk fu xulewul dadaa war nu daal yërmande la day miinu war ñàkk yaat miskin ya kenn du ko daw diraa jiim ya di toog ak jaambe la di seet yooyu wopp yaat jaar yooyu mu mën a xaw dina mu way dee faatoo boobu la di seet yooyu wopp yey jaar yooyu fu mën a xew dina mu way dee faatoo boobu la lu xeeb lu ndaw te lu laay nit lu xamul abada man comme ça salag lu ca kaw askan nga laaw du dóor du mer te du mer loo nit du gedd du lor du xooti saatir ñu yàq ak der ba yàllaaw suy mer da daa mer ci mbir moo xam na yàlla da jaar mer bu sabaa bir ko moom sabaa ja yàllaaw suy bég damaa dégg ci mbir moo xam na yàlla da jaar bu sabaa bir ca moo sabaa moom yaa ngi naam su dee gërëm day gërëm boo xam ne yàlla da ko gërëm mu xëy du gërëm lu gaa yaa ngi naam defum dajal faw mu la jëkk ñu si wér day saafanteeg jàmm teeg ay laaw def ràq ba moomam wax ràq moroomam wax ràq dëkkaale ngir gaa yaa laaw ñu xii waxi bay taxañay ci lekk yaram te xam ne moo caabi boobu la yàllaaw ci bona bay tey lay mu ci lekk la te xasaati rabbil arsi yàllaaw saabil fuduli mu ba mu tey la ca kaw fa xëy dugub xaw na faawet boobu yàllaaw te si keroog la ko mboolee ba ji yëpp dikkal maa ngi soppi wurus muy bay fa وراود بجمال ثم من شاب هل في فلا الآو يلاو كلي من مور الأول موت الدواب النظر تجبل الآخرة تبارا يلاو وأكد الشهداء فيها درارته لا يلقى بدوس ينم بيلاو وقد ركلون بيجي داو فجو أتسكت خدما أدرى يلاو ku guddi rakka la woon buy julli daawu fa jóg adal dara xadama uduree la ak naa fi laa fukki rakka abadan yeesu lëkkul taxawaay baax ak yàlla xutbu jumaam daf ko daa gàttal te wax ko ca kaw ba ñëpp dégg ko muy ñaaxaate yàlla way primo day fa moo man gën te soppi dëkkam day saafara rag tey faj doon ba yàlla danaa yaram daw teral màggat fayal ko borom di fa jirim yaa samay daay bi yàlla di làq baayo ak miskin ya fuñ mën a jëm di topp doo bañ a yaat jërmeel ya yàlla da wax lu ñu dëgg maandu maandu bay safurab doo gis mu war ci bi daay ya du lekk yàq du lekk umra bu mbaate sax hadiya lay lekk mook saamaam lay law wante yeet naa dami almutatama karam بلاد بلادتي يمامك يا الله عليه به فلا ربي رياني على مورد بجانة وإنا يقبل بصر موعد قرآن يا يوم ننتظر الله للمجزات رسول الله جنب ضغم رياني تيري لا يقبل الله دبر الله الخوارق ci Mustafa Mustafa Muxtaar ana lam takku fi man mada wala la samanin wala taara liman yaatoon ana amul ci gaa yooyu amul ci gaa yi bi des xante fi ñuy bëgg a ñëw inshaa Allah min assalaamu hijaaratin alayka kama shajjarinaa lil Mustafa nit yaa ngi koy nuyu di dof di jëm moom di si joot li laa ilallah bokk na ci mu ci saatam weer wu xëy na saxar def yaari weer wow sowoo wow penku yàlla jàngal xamar ko nga gis waa Makka wax dañu wax mel naa jabar la du xar baax walla yàlla bokk na ci mu ci saatam yaari yoon la ko def demoon na jant bi nit dem dellu yàllaaw bokk na kii mu ci saatam yaari yoon la ko def demoon na jant bi nit dem dellu yàllaaw wéeyoon na liya boo si tey ni moo ko waral wee saaba yam yónni woon ñun jëkki yàllaaw bokk na kii mu ci saatam nii de daa ko keroon mba tëkkiyoon daa nuyoo moom bokkale bi mu gisaa da ndox mu balla jaay kenn xam te dàqale man suukar waaye laaw bokkale bi mu gisaa tam mu nekk ci nag yonen ba ti mu bopp muy sabaale laaw mu gisaa tam te nu maaga bu bal ba ñëw këram di taam si lor waaye laaw bokkale mu gisaa tam te nu maaga bu bal ba ñëw këram di taam si lor bëgg na ci mujj saatam taaba jom ma sowal loo ñangi ñangi ne nu ba wàcce yàlla bëgg na ci mujj saatam taaba jom ma sowal lu saw bu ne fale ngir war maal ko yàlla bëgg na ci mujj saatam bàyyi naa ya di wax ki leen daree sàmm bés gàttam ya yàlla bëgg na ci mujj saatam bàyyi naa ya di wax ki leen daa sàmm استكبروا يا الله مكانك مدير آدم ركبوا غيرتي يبين من الكهنة وابو يا الله مكانك مدير آدم wenn lañ du ko dal du dal ci siriir du yor néega bari laaw mokkanaki mu gis aadam génn génn du ko jam dee nga felam yoo du mos daa man mu gis jaan ya daanu ko daw ji jant daar war waraat luy tookee moom bappa na kii mu bisaatam ay ñanaa bi fa ñoom di ñëppuloo kay siyaa rey dellu yàllaam bappa na kii mu bisaatam jinne daana fa ñëw di jëppuloo kay siyaa rey dellu yàllaam bappa na kii mu bisaatam ay malaaka ay malaaka di ñëw ngir waa bi ñëw di siyaa day dellu yàllaaw bokk na ci ay malaaka di ñëw ngir waa bi ñëw di siyaa day dellu yàllaaw bokk na ci mujjizaatam ay wallu yàllaaw bokk na ci mujjizaatam yàlla daana yebal jibilu muy indi bokk na ci mujj saatam seen rañaan ma ñu dem ila samaawaati mu jibilu yàllaaw bokk na ci mujj saatam alburaax ma mu war muy naa ba dem samaaw dem del si yàllaaw bokk na ci mujj saatam kër ya gaw mu jéggaleen ca guddi gadaay ga yàllaaw bokk na ci mujj saatam fépp suufu mu cor keroog nay nin mu rey noonam yaay allah boppa na ci wuti laatam dem fa naa ni këram mu ñaan ni ba naa amiin yaay ba gaanaa ci mu jisa dama dem fa naa bu ñaan mbiram néeg ba nekk bana amina yàlla bokk na ci mujj saatam waaju moom di ko nax di dong dong lu far dem dong yàlla bokk na mujj saatam waaju moom di ko baw mujj saatam waaju moom di ko ree mu xiir paap xaj mu këru siisam njaayalaaw bokkam na kii mu gis aatam waa ji ñëw di waa ji koy tëru mu xiir ko gaynde mu dal koy fàdde yàllaaw bokkam na mu gis aatam waa ji koy tëru gis mu xiir ko gaynde mu dal koy fàdde yàllaaw bokkam na mu gis aatam ndaw su ñëw ko nax di gaana gaana lu far dem gaana yàllaaw bokkoon na kii mu di waa ji ñëw di ko di wopp woppulu far dem faatu yàllaaw bokkoon na kii mu di saatam doon ñu seet mu for ñu dégg doon mu mu yor lee ca junni bu xiifoon booba yàllaaw bokkoon kii mu di saatam menn mu yor nandal ca junni bu mar bañ man di yannaaw bokk na ci mujj saatam bay wu yooyu fa ñëw mu raaya naat la mu jooxal soow ma yannaaw bokk na ci mujj saatam jar ko ñam gëlli ndon te dax ma tàgg ceroo kunteel ma yannaaw bokk na ci mujj saatam kuy dawal di ko dal suuf dal di koy modd mook jàkkee ja yannaaw bokk na mu toj tafadum askatam ngir joxal bi yàllaaw bokk na ci mujj saatam xeer bu yàqu ba woon njool makkatam li ca muy baawaan ba yàllaaw bokk na ci mujj saatam yega woon ca badar mu jokkoo gaasatu mu jëy gaasi yàllaaw bokk na ci mujj saatam lu mu defoon ca uwoor loolaa di loola ca abdullahi yàllaaw bokk na ci mu gis aatam ku dee moo ñaari wajur ya lil imaani yallaaw bokk na ci mu gis taw bu dëkk bañ a fer ba muy xay bés ca ñaanam ba yallaaw bokk na ci mu gis saatam saaba yay bëgg a xas xandax malaaka ya far ngaaraw ba yallaaw bokk na ci mu saaba yay bëgg a xanaa malaaka ya faf ngaa rew doyalaw bokk na ci mujj saatam mas la soxla woon ak mbaa lu mu fa def suufal na yàllaw mujj saatam gëj a daana nelaw te ba moom du nelaw fu mu toll yàllaw bokk na mujj saatam mas la soxla woon ak mbaa lu mu fa def bokk na kii mu gis aatam ma sa jeesu wetam tey gis kanam ak gannaawam bir na yàllaw bokk na kii mu gis saatam suy demit ku ko dab tànkam du feeñ lu ci aw doj bir na yàllaw bokk na kii mu gis aatam gaay abramin ne leen ñanaaw ya defoon ñoo ñaya yàllaw ñanaaw ya dañ leen a sànni doj ci xurwaju dee xar jaañi bopp ya fallas ñaya yàllaw